asalaamaaleykum mbokk internet Leewtoo TV ginnaaw bi ñu leen nuyoo di am contentement jën ak yéen sax suba li gën a fas ci bopp xibaar yi comme ni ñu koy defee toujours naa la Ndeye Mbacke maa ngi lay fay wante maa ngi nuyu bu baax a baax suñu mbokku internet yépp ñuy topp ci Leewtoo TV du nuyu waa Diourbel sama dëkk ana waa Gambia waa Gambie nga fa ah, sama sëriñ sa ngi ñëw mais Ndeye Mbacke dinaa la wax benn affaire Gambie dëkk bu neex la dëkk bu bëgg làmb la et puis dëkk la ba nga xamante ni bii ñu ngay dund làmb a 100 pour cent Assane Waalo Ndeye Mbacke maa ngi lay fay di nuyu internetu Leewtoo TV amaan mbégte jàkkaarloo ñoom pour indi leen li gën a fës ci yéenekaay yi. mercredi 17 février 2021 journal suñu laam xëy ci xëtam bu njëkk combat revanche du 4 avril Lac de Guiers Eumeu Sène Grogne. Lac di combat ba nga xamante ne bii suñu papa euh, Gaston Mbengue moom moo ko taxawal jàpp date bi nag incha allah bu ci yàlla àndee le 4 avril 2021 ñaari mbër yi yëkkati nañ seen kàddu ci journal bi Assane ñoom nee na ngi xaar li des ci seen avance boobu ba léegi jotaguñu ci. dëgg la Mbaye Babacar ni nga ko waxee noonu la Gaston euh, ga combat di 4 avril Lac et Eumeu Sène grogne maanaam euh, combat 4 avril bi Gaston may ngi prévoir ko Eumeu Sène ak euh, Lac ak Lac mi di war ko séq ñi ngi ñaxtu lu tax ñuy ñaxtu nag nee na jotagun li des seen avance yi Gaston Mbengue daf leen a joxoon tuuti rek te loolu mu jotoon leen jox ñoom lekk nañ ko ba instant yi ñoom amul lu luñ fayee seen mara buy amul sax luñ génnee sarax loolu tax daal ñoom ñaar ñu ngi ñaxtu pour que Gaston jox leen li ci des. Assane ku nekk xam na ne préparation combat dafa métti surtout combat bu mag. dafa métti te ga combat revanche la c' la troisième fois ñuy daje Eumeu Sène daane na ko niil na donc Lac de amatul droit à l' erreur war na daane pour jël revanche am donc war na am loo xam ne nii war na préparation combat bu baax a baax a baax pour wan ci mën a génn. kon mu mel ni kon euh, ñaari mbëri ñi ngi xaar seen avance. ñi ngi xaar xaar li des ci seen avance. boobu te jël nañ au di fasalee seen seen naqare ci journal suñu làmb le donking de la lutte sénégalaise rassure ils recevront leur salaire complète gannaaw ba ñaari mbër yi di ñaxtu di xaar li des ci seen avance ki nga xamante ne bii mooy Père Gaston di moo tëgg komba boobu war a am le 4 avril andi na ay leeral ci euh, li des ci xaalis bi moom nee na incha allah bu état bi joxee feu rek mu yëkkati xaalisu mbër yi jox leen ko ñoom ñaar ñu mën a dem préparer ji. dëgg la Mbaye Babacar Gaston rassure noonu la ko journal suñu wax waxee dafa jox kàddu Gaston li wax nag mooy nee na Eumeu Sène ak Lac de nan tey te dal ñoom dinañ jot seen xaalis. nee na daal état bi lay xaar mu joxe feu vert mu jox leen seen nee na nag xaalis mi ngi ci compte bés bu état bu joxee feu vert dina leen ko indil ñu ñu ñu mën a préparer seen combat waaye eh, Gaston am na lu mu ci teg nee ne état bi bu dee dafa xaar ba 15 jours ci combat bi mën na am mu reporter combat bi ba am beneen date bu gën a baax. kon daal euh, mel mel ni njaw desandi naw xambin loolooy tax euh, ñu am dut que ne combat bi mën nañ ko reporter le 4 avril leen ko prévoir pour le moment mais njortu. ñu reporté ko beneen date. dara leeragul ba léegi. li ci kanam rawuli bët démarrage tardif de la saison 2020 2021 le promoteur Jumbo s'attaque à Matar Ba. Euh, promoteur bi nga xamante ne bii mooy wuyoo ci turu Jimbo Jimbo nag xam naa war naa saf. Euh, ay événement tamit war naa saf sàpp comme comme wuyu turam Jimbo moom li mu li mu li mu yëgle ci journal bi moom moom tamit day yëkkati day yëkkati li nga xamante ne bii moom mooy ay kàddu kaddu yu ñaxtu mais moom ki mu joxoñ baaram mooy jëwriñ ji gàlloo wàllu tàggat yaram ci biir réew mi kooku di Matar Ba. ni nga ko waxee noonu la Babacar Jumbo moom mooy euh, patron bu Rens Dakar production ay benn structure la buy tëgg làmb moom nag daa xëy attaqué frontalement Matar Ba nee na Matar Ba bëggul làmb comme ni ko gars yi waxee ndax ubbi def na permettre na basket bi am football di am course hippique di am mais daal tëj na làmb loolu day wane que ne Matar Ba bëggul euh, làmb moom nag nee na prévoir na dix combats ci saison bi te di dix euh, combats yooyu. amagum na ci set yoo xam ne nii monté na ko monté na mobile 2 Bour Sine mhm. Kal Mundur ak euh, Eumeu Sène Junior Nekorel ak Marley Pape Thiam 2 ak Kolbu Zap ak Adama Diouf bi war a jàkkaarloo ak Wuli moo mel ni agenda am riis na kon. moom moom Jimbo waaye li est-ce dina ko am temps pour tëggoo ci année bi loolu mooy question bi. ñu yónni yàgg li ci kanam rawati bët. dernière victoire en 2014 deux défaites d'affilée Bruce Lee un karatéka en perdition. mbër mii di Brice Lee ñu xamoon ne ñu xamoon ne champion la ci làmb ji gannaaw depuis 2014 la këj a am. ndam ci làmb ji. ba mu ci jógee daal di tegale li nga xamante ne bii moom mooy ñaari défaite euh, ñu journal bi ne euh, Brice Lee mii gisatuñu ko fenn kenn xamatul ci lu mu nekk Assane. dëgg la Mbaye Babacar Brice Lee ñu xam ko mu nekkoon ci Fass moom nag euh, journal suñu làmb nee na benn karateka la boo xam ne nii instant yi affaire am doxatul dara. Euh, lim doon tàmbal li ñi di ko def daal defatu ko moom nag dernier combat mi ngi ko am ci fëgg la loolu mi nga xewe woon la 20 juillet 2014 euh, Billy Silly tegale na deux bàyyi ma Mandione daane na ko le 15 2000 euh, le 19 avril 2015. Uh-huh. Ahmed Dem également daane na ko le 21 juin 2018 ñaari défaites yi daal la Billy Silly tegale moo tax instant yi journal suñu laa mu ne Billy Silly un karatéka en perdition. ba léegi Cheikh ngi sort de son mutisme j'ai quitté Pikine mu mel ni noppi ba mu nekkoon jóge na ci champion bii di Cheikh Ngiraan moom nee na léegi jóge na écrit pikin mbooloo euh, wax na écrit ba mu jëm asam dëgg la Mbaye Babacar Cheikh Ngiraan nee na jóge na Pikine mbooloo fu mu jëm nag moom mooy ci école de lutte Fodé Doussouba moom nag ñëwaat na ci carrière am na bi mu daanee Moutia 2015 ba léegi. mënul am combat wax na également ci Pikine mbooloo bi mu jógee nee na foofu la njëkkee am euh, cachet boo xam ne ni quatre-vingt mille la nga ko fayoon waaye foofu la également njëkk fayee ko million loolu daal euh, xëy waxtaan ak séq ak waxtaan ak journal suñu làmb waxtaan wu yaatu nag ba léegi Ahmed Ahmed Konaté coach Kay Baax nous allons descendre dans les rues kooku nag yaakaar naa ne pare na pour wàcc ci tali bi pour fësal li nga xamante ne mooy naqar bi ñu am. Euh, kooku di Ahmed euh, Konaté di euh, ki nga xamante ne bii moom mooy tàggat écrit kaay baax nee na ñun ñi nga xamante ne bii ñoo bëgg làmb di dund làmb te suñu lu bëri nekk ci làmb dañoo war a wàcc ci mbedd mi wane li nga xamante ne bii moom mooy suñu naqar. dëgg la mbay Babacar dëgg la Mbaye Babacar Ahmed Konaté ñu gën ko xam ci mu nekk kottu kaay baax moom nag lim xëy wax moom mooy que ne. mu ngi prévenir état bi nee na su moytuwul ñoom di leen wàcc ci terrain bi pour yëngal yëngu-yëngal pour que ñu mën leen a dégg lu ko nax naqari nag mooy que fet fait que ñu toog ba heure bii te saison bi démarré gul moom nag attaqué na fa également Matar Ba nee na Matar Ba ñu ngi wax naan mba ministre làmb la waaye en réalité nekk ko ndax bàyyi na football bàyyi na basket bàyyi na yeneen sport yi mais tëj na làmb bañ mu dem donc loolu day wane ne que ne Matar Ba bëggul làmb moom loolu la wax ci journal suñu làmb bi tey. ba léegi ci kañ jëm mooy Forza Forza je suis seul Forza moom mi nga xamante ne bii moom moo nekk fële ca écurie Fass di champion bu mag moom nee na mooy mbër mi mën a daje ak ñëpp nee na bàyyiwul kenn tàllal na ñëpp loxo pare na pour jàmmarloo ak mbër yi nekk ci euh, arène bi yëpp. dëgg la Forza dafa nekk mbër moo xam ne nii mu naqadee wutal euh, adversaire la ndax mm. euh, ñu bari da nga koy ragal ndax ay dóoram. Mm. moom nag dernier combat bi mu defoon daf ko mujjoon daf ko gagné woon ci Abdou juuf la la dajal woon gagné ko loolu mu ngi xewoon ci Diourbel le 24 février 2018 depuis boobu. Forza mënoo tëggal adversaire moom nag nee pare na pour bële Sa Thiès Yékini Garga Mbossé Nes Elton nee na ñii ku ci ñëw daal moom pare na pour jàkkaarloo ak yow. Forza mbër mu mat a bàyyi xel la ndax ci ñaari victoire la jóge super étoile la njëkk daan après ci la daan Abdou Diouf ni mbër ma nga xamante ne bii nag mën naa ne ndox mu sedd muy rey màtt la. dañ koy daw boo ko gisee da ngay yaakaar ne. Ah. mbër mu sedd la wante boo jàmmaarloog moom. kombaam ci luy baax lay doon du am roko buy sedd arbitre day souffle rek. kurfeñ kurfeñ ya tàkkarnaase ni nga ko waxee Babacar loolu la looloo tax mu naxaree amal wutal adversaire est-ce que du wàññi dóor bi dóor yee bëri loolu la war a wàññi Forza <laughs> wàññi safara bi bokk nga fay ba kenn gisatu ko journal suñu lam xëy xëy ci moom feu rouge ne brûle plus feu rouge de euh, xale bi nga xamante ne bii macha allah amoon nañu yaakaar ci moom ci bi muy soog a commencé ci làmb wante xale bi nekk école de lutte ko Sow mm. mën nañu wax ne euh, fan ko doon xaar daal Assane euh, gisuñu ko fa feu rouge ne brûle plus noonu la journal suñu làmb titré nee na daal feu rouge nekk euh, école de lutte euh, Boscoso mi ngi marqué la pas moom nag dernière victoire am mi ngi ko amee woon ci caat loolu mi ngi xewoon le 4 avril 2017 depuis lors nag dajale na fi ay défaites ndax euh, en 2000 daan na ko le 28 juillet 2018 doomu dàngu également daane na ko le 27 juillet 2019 ñaari défaites daal la tegale moo tax journal suñu làmb ne feu rouge mi daal tàkkatul dara. brûlé wul bu baax fañ dem nag mooy CRG bu Thiès le gouvernement toujours silencieux. Euh, CRG bu bu Thiès la ñu jëm euh, gannaaw ba ñu jëlee sa Ndiaye toftal ko ci ki nga xamante ne bii moom moo jiite CNG bi euh, waa Thiès ba léegi ñi ngi xaar ki ko war a wuutu ci bopp CNG bi foofu ci Thiès kaay ñoom nag ñi ngi déglu gouverneur bi ngir mu joxe li nga xamante ne bii mooy ki ko war a wutu dëgg la ni nga ko waxee noonu la comme Maysamba Ndiaye moom moo nekkoon président CRG bu Thiès léegi ñu toftal ko ci Bira uh-huh. léegi nag dafa war a am ku ko war a wutu foofu ci président CRG boobu loolu nag euh, inspecteur bi tudd Marie Pierre Ndiaye moom nag euh, bu bu yàgg ay ay ay jamono ngi nii jël na dossier bi tànn na ñi war a ñi yaakaar ne mën nañ ko euh, wuutu ci bopp CRG bi jox ko gouverneur bu Thiès gouverneur bii nag moom la ñu xaar gouverneur mi ngi tudd Mamadou Moustapha Ndaw moom nag nee na lu ko tax a réagir mooy que ne Covid bi moom la tal ba léegi talagut làmb loolu tax ba léegi amukul jëlagul décision jëm ci wàllu woowu. kon daal mën na ne bal bi mu ngi ci camp gouverneur bu Thiès kay moo ci des daal lu mu war a dogal rek euh, ñu ñu xaar daal mu ngi xam peut-être bu Covid bi jàllee. dina décider waaye nag war na war na war na war na joxe ndogal waa CRG eh, bu Thiès nekk ci leneen. waa Thiès kaay xam kan mooy seen président CRG. dëgg jot na nag yàgg na am na solo. ba léegi ah journal record lañ jëm ba mu xëyee MMA la dem diggante du cinquante de ak polonais boobu le 20 mars incha allah. Euh, ku nekk xam na ne euh, Bombardier am na combat incha allah le 20 mars ak benn polonais ba nga xamante ne bii macha allah ku ku ku ñëpp di bàyyi xel la waaye wante Bombardier dafa ñëw ci journal bi wax ñu li mu xaw a nuróole ak polone boobu ndax nee na ñoo ñoo ñoo tolloo âge. Hmm. ba pare gabarit yi tamit daanaka benn la sorewuñu mu nar a nekk lu neex. ni nga ko waxee noonu la Mbaye Babacar journal record tey dikk def euh, B52 ak Pidjinovski noonu la ki muy dajal euh, tudd nee na entre similitude et écart nee na ñoom ñaar ñoo toll ay at ku nekk am na quarante 44 ans ñoom ñaar également euh, poids daanaka ñoo ko tolloo nee na polonais bi am na 20 combats Bombardier moom 3 combats rek la am. nee na nag euh, Bombardier war na dem poloñ am na visa am ci weekend bi la war a dem Pologne pour jàkkaarloog euh, adversaire am bii di picc Pudzianowski. kon combat bi foofu ci poloñ lay amee. Bombardier amagum na deux victoires bu daanee ki dina am trois victoires tolloog rek rek am na solo Assane boobaa dañ koy xale yi rek fekk si leen dóor leen ko ñaan yàlla loolu am lan ngeen tàggatooyee xanaa jaajëfal ñëpp bu baax a baax di ñaanal Bombardier combat boobu mu jëlee ci ndam wax nga lu ma gëj a dégg nag fekk si leen dóor leen ñoo ko sañ loolu dañ ko doon woyantoo temps bi nekkee xele jaajafal nañ ñëpp amati mbégte ak contentement ci ànd bi internet yi di ànd ak ñun wante tey damay jaajëfal sama jigéen sama xarit na bu jonn moo ma génnee fii ma génn yaayu maam Fatou ak Nadia jonn may sa waal yi na sa jàmm yàgg seetaanoo ma benn yoon yaa jàpp ci combat bi bu baax jërë ngeen jëf ba ëllëg ak jàmm. Assane Waalo. jërëjëf Ndeye Mbacke comme d'habitude di remercier waa di remercier Yacine Fall. di leen jox dig daje suba ak jàmm incha allah. jaajëfal di leen jaajëfal yéen internet Leewtoo TV ñuy suivre ci revue de l'arène chaque jour di leen bëggee bu baax Aline Ngom ku ci mel moom maa ngi koy bëggee maa ngi gis commentaire di gërëm di sant équipe technique bi Mansour Yacine Fall Ousmane Matou ak Aïda maa ngi leen di bëggee bu baax a baax di gërëm aussi sama ñaar laqatay laqale yi di leen jaajëfal leen jox dig daje ëllëg incha allah ci Leewtoo TV.